asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku si yéen di ko ñaanal bépp doomu aadama boo xam ne rek yaa ngi ñu seetaan ak sax ku nu seetaanul ah ñëpp la ñuy ñaanal jàmm mucc xéewal gudd fan ak wér-gu-yaram léegi li ñuy def mooy tey nag moom mooy àllarba maanaam mercredi 9 juin 2021 dañ leen di bàyyi ngeen dem seetaan li yëglikaay yi indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 9 juin 2021 dañuy yokk ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu làmb nag tey xëtam mu njëkk moom fa mu ca xëy fesal wala lam ca xëy fesal lenn la Bombardier bu mbuur daal moo xëy tey di dànkaafu Eumeu seen di ko xamal ne daal loo ci mën a dégg mooy man ak waa Pikine histoire ba yàgg na lool lool lool mel ni ki daal kon diggante Bombardier ak Eumeu Sène Bombardier tamit donte combat am ak Balla Gaye la dëkkmal waaye mu ngay bàyyi xel Eumeu Sène bu baax a baax sunu làmb moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu rakki Balla gay de moom di Sa Thiès moom la muy wax làqu ko wala mu nëbbu ko diggante ak Moussa Ndoye daal Sa Thiès ne na boo ci mën a dégg biir enceinte ba géew ba moom su ma ci ne sarax ca biir géew ba maanaam calcul moom di calcul na fii laay aaw fële nee loolu du ci am déedéet man kay la ma bëgg laay wuti rek dal ci kaw Moussa Ndoye kese waaye calcul moom Sa Thiès ne na du ma ko boole sax ci la nga xam ne dama koy xalaat bu ma duggee ci géew bi su arbitre ba soufflé yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw dalal ko ñaar ñëw xam ne ni moom seen combat jàpp nañ ko ñu war a bëree le 19 muy diggante Franc ak Tyson 2 ka nga xam ne moo xëy tey di ca wax di jàngat combat ba moo di booy Kayre champion bi nga xam ne nekkoon na fi wala boog daan na bëre ba bàyyi bëre ka nga xam ne nag moom mooy Kayre daal la mu gis nee na kii di moom am na atu yépp ngir gagné boobu combat maanaam daal loolu mooy gis-gisam ñoo xam ne moom seen combat ka koy gañe kan lay doon yëglikaay bi ñëw na ci tey muy diggante France ak Leket Baara combat bi nag dimanche ji nu jëm la war a am maanaam fa muy amee moom mooy ca Gambia mu mel ni kon daal. maanaam yëglikaay bi na choc de la Sénégambia daal la ko sunu làmb xëy tey jaman jamaykee nag moo fa jaar kon ku mel ni ki daal kon dimanche moom Gambie dana yëngul lool lool sunu làmb xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu kenn koo xam ne ni moom yëngal na ba daan te itam min na Gambia muy soq soq ma nga xam ne nag moo daan bërki dem gàmmu géey ci arène nationale ka nga xam ne moo di ab agent am yore ko di kilifaam daal di jibi joolaa moom yëglikaay bi xëy na tey dalal ko nee na moom benn yitte la ñu am ak benn soxla benn mbërit lañu soxla du kenn ku dul doomi booy kayre ji nga xam ne moo di jéen kayre ji daal nee na jéen daal la ñu soxla face à face yi nga xam ne nag moom day ànd ak ay violence ak i dóorante tojante ay bopp moom yëglikaay bi di suñu làmb daal tey ñëwal na ci dikk na ci lu mel ne ki noonu la mu xëy xam le nag nee na ñii di daal civilisé moom war nañ koo boole ci seen ay mbir te itam nag xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel noonu face à yooyu nga xam ne nag day ànd ak ay violence ak ay gaañante Ibra mbay moom nekk ca écurie la mu xëy xam le daal ne li ci des mooy wala boog liñ ci war a def mooy fi mu nekk nii def ko loo xam ne daal ay face à la yoo xam ne daal maanaam dañ koy def ci ab distance maanaam kii nekk këram kële nekk këram mu mel ni wàllum diplex boog war a tiliprex daal Ibra mbay noonu tey la xëy gisee loolu nga xam ne ni moom mooy am Gaston Mbengue moom ku ne xam na ne combat yëpp ci lamb ji ren moo ci teg loxo te rawatina combat yoo xam ne yu mag a mag yi la Gaston nag moom mu nga xëy di wax ak Abdoul ak nga xam ne moom mooy Abdoulaye Dieye Gaston daal ci sunu lamb nee na boo bëggee dégg moom budget dépassé na fi mu nekk ni daa mel ni ñaari milliards loolu mooy waxi ka nga xam ne ni moom moo di Gaston Mbengue ci yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu làmb moom Gaston mooma moo tëgg was jàmbaar ak santa ñing yëglikaay bi ne le 26 juin la soog boobu nara am mu mel ni que nag boo xam ne bu jara bàyyee xel la ndax ab xale la ak koo xam ne ni moo ko mag muy ki nga xam ne mooy was jàmbaar bu yaraat ak santa ñing ma nekk ba nga xam ne moo di ca yoof wala ca mbuur sunu làmb moo xëy tey ñëw dina wax lu mel nekk doon beneen choc boo xam ne itam face à face amoon na ca bërki dem tàngoon jër doxoon ci diggante Gambien ak nga xam ne moom moo doon assurance combat bu tamit le 27 join lay am fa muy amee nag moom moo di ca Mbuur yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ne ki noonu ba tey la vingt 27 join jooju jàppal am na combat boo xam ne tamit day am dox ci diggante Lagros ma nekk ca Kaolack ñu naan ko Lagros bu Passoir ak Tafa Gueye 2 mi ngeen xam mu nekk ci Fass ak Ndakaaru mu mel ni ki ñaar ñoon tamit daal loo ci mën a dégg seenum combat nar naa métti lool yëglikaay bi di sunu làmb ba tey moo dikk ci loolu keneen koo xam ne yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom ak ay kàddoom yoo xam ne fi mu nekk nii daal andina na ak jeexi jaaxa wala ak jaxasoo muy Aziz Ndiaye mi ngeen xam te mu yore Balla gay 2 di ab agent am Aziz daal la mu xëy xam le daal nee na Balla Gaye 2 moom loo ci mën a dégg kii nga xam ne moo di Boy Niang wala Eumeu Sène nga xam ne dañoo jël ay combat war a bëre ak mu ñoom Aziz ne na daal ku ci am defet Balla du bëre ak yow de Balla daal ñi victoire lay bëreel loo ci mën a dégg Aziz moom loola la wax te itam loolu la jàpp moo tax record jàpp ne daal ah ak jeexi jaaxa nag dugg na ca mbir moom nga xam ne ni moom la Balla Gaye 2 signé ka Balla Gaye 2 signé nag muy Bombardier record ñëw na ci Balla Gaye 2 moom la mu xëy di xam le wala la muy wax Bombardier nee na ko yow day sama diggante ak yow fi mu nekk nii mystique kese kese kese kese nga ci yaakaar yaakaar nga ne daal mystique moom may daan waaye Balla nee na ko yaa ngi nax sa bopp te buñ ca yeggee da nga xam ne foofu nga ko teg du foofa loolu moom na nga ko teel a xam mu mel ni ki nag tontu lu forox ndax Bombardier tontu na ko ba mu sab Bombardier ne na ko yow de yow soow rek ngay def fi mu nekk ni di yëngal di tàngal waaye yaa gën a xam ne li ngay wax sax gëmoo ci dara dara dara dara yow boom yow Balla Gaye de boo ma ne ko say wax moom lenn loo ci gëm amul da ngay soo rek di tàngal ni di xuppaate waaye da nga xam ne man Bombardier moom loo ci mën a dégg buñ ca yeggee daa gis loo xam ne foogoo kon ko ci man yëglikaay bi ñëw na tamit ci xale boo xam ne mën nañ koo xaar fa ñoom Balla ak ñoom Bombardier ne ëllëg bu continuer aw yoonam muy daam seen yëglikaay bi ñëw na ci moom ak na mu Ndandi Fall sunu làmb wala boog record a xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu abooy tamit foo mu jaar ak fils de Zallo loolu lépp record a xëy tey ñëw ci mel ni ki nag fi mu nekk nii kon làmb ji daal loo ci mën a dégg sàjj na moo xam ndakaaru la moo xam mbuur la moo xam kaolack la foo mu ci mën a doon fi mu nekk nii moom ba Gambia maanaam surna yaa nga ne gàññ kon daal fi mu nekk nii moom la gaay doon jooy daa mel ni am na yàlla nañ koy bari ci jàmm muy jeex ci jàmm que que gañ kon leer na mbokk yi loolu la yëglikaay yi indi mel ni kon daal na ma ko tëjee rek làmb ji fi mu nekk nii jax na lool lool parce que nag ku ne xam na ne ah fii ba mois de août moom loo ci mën a dégg lépp ay journée la day tàng te itam li tax muy neex mooy journée yi day xel di daje kii day tëgg fii kii tëgg fee la preuve dimanche bii nu jëm di la treize Assane Ndiaye mu nga arène national ci bi Ndiaye mu nga fa nga xam ne ni moom moo di ca. stadium Iba Mar Diop Jamaïcain mu nga Gàmbi mu mel ni kon xule làmb ji jax na fi mu nekk nii kon daal noonu lay continuer ba ba ca mois de août ba yàlla na lépp jeex si jàmm rek ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo warate ci am ndam buñ ko ci amee ñu xam ne loolu am ñi ci am defet tam ñu xam ne sport la ñu dem liggéeyuwaat parce que moom faw sport am ko am ndam am ko am defet wala match nil am ca bu nu ñëwee nag si yëglikaay yi tey sunu làmb xëtam mu njëkk fa mu xëy ubbee mooy bombardier bombardier ba nga xam ne mooy dëgg dànkaaf Eumeu Sène te ma daanoon na ko terewul Bombardier nga koy dànkaafu de xamal na ko ne naa sama diggante waa Pikine histoire bu yàgg la waaw Bombardier moom yaakaar naa ne am na fu bëri fu mu jaar ak waa yaakaar naa ne ah am na ay mbër yu mu fa daan waaye am na ay mbër yu ko fa daan wax ndax ku ne yaa ngi fàttaliku digganteem ak Baboy ca Thiès si di jaxate tëggoon ko kera defe naa ne ba ko Baboy daane defe naa ne kera man nga ne àddina bu tukki woon ndax kenn gëmu ko kenn xalaatu koon ko dañ doon xalaat kay Bombardier ndax du gaañ Baboy baa boo yoxosu ko daw tibb tànk ya dëj ko ñu doxaat ba jamono boole leen ca Paris la France Bercy ñu revanche fa Bombardier fayu te ku ne gis na Bombardier fa mu jaaroon ak cek cek itam di doomu Pikine ak yeneen i mbër waaye gis ku ne xam nañ itam Eumeu seen bi muy digg roi des arènes ci Bombardier la ko nangoo kon ja li mu wax am na waaw histoire moom ak moo waa Pikine histoire ba daa yàgg waaw lu yàgg la ci làmba tey nag bu ñu doxaatee ba seen combat taxaw di revanche ah kon bés bu jaraxaar làmb pire la sunu làmb moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu muy bés boo xam ne daal ah yàlla nañ ci yegg ak jàmm rek waaye làmb la de Bombardier Eumeu Sène revanche la waaw te revanche daawul sedd ki nga xam ne itam narata seddal muy Sa moom xëy na tey ci likaay bi di dëggal ay waxam moom la muy wax ne na làqu ko tey suba waxi noppi sama diggante ak Moussa Ndoye Sa ne mu duggee ci géew bu ca biir géew ba ak moom na calcul moom xalaatuma ko amul lu muy ne fa naan ñuul na weex na wala nees wala ngelaw wala taw ne na déedéet damay def la mu bëgg def loolu la wax waaye ndax bu ko defee ndax dana ko réussir fa la ba na est-ce que Moussa da koy bàyyeeg boppam mu def ko li mu ko bëgg def loolu loolu moo jar a laaj parce que ñaari xale lañ yoo xam ne nii ku ci ne da ngaa jóge ci defet Moussa Ndoye Garga Mbossé ko mujj daan Sa Thiès Boy Niang ko mujj daan kon defe naa combat boo xam ne ñoom ñaar fi mu nekk nii li leen ciy génne kum ci mën a doon te muy doon li gën a baax si yow mooy nga am si ndam parce que boo ci amee ndam di nga mën a toogaat toogaay bu baax te itam di nga mën a utaat beneen combat boo xam ne boo ci duggee am na noo ciy génne mën ngaa dem nag ca ñi ñuy tudde les VIP kon yaakaar naa ne combat boo xam ne bu bu bari enjeu la bu doy doy waar la waaw combat Sa Thiès Moussa Ndoye moom combat bu ko gën a doy waar ba tey le 19 juin ku ne xam na ne mooy dimanche bii nu jëm wala boog samedi bii nu jëm bu tellusee arène nationale ak Vox Arena Franc Tyson 2 Mama Lamine Garga 2 combat Franc Tyson 2 nag Boy Kayré moo xëy di ko jàngat jàngat jàpp na ne Franc a tous les atouts pour pour battre Tyson 2 waaw loolu man am naa parce que itam xale la comme niñ ko gisee te itam lit simple bi ngi ci wane boppam amagul defet mu ngi ci 9 combats 9 victoire ci arène bi kon yaakaar naa kooku moom kuñ ne la kuy bëreeg moom ñu ne am na atu yëpp pour gagner la war nga ko nangu war nga ko ko nangul parce que xale la boo xam ne bu bëgg lu muy def la moom Franc moo xam ne ah mbër mu jar a bàyyi xel la parce que la tax mooy am na bëre bi am na xeex bi te itam nag jaaxal ko ci làmb yombul kon combat boo xam ne daal bu nar a doy waar yàlla nañ ko fekke tal ko ba tey bu ñu continuer ku ne xam na ne dimanche jii nu jëm di la treize ca Gambia France ak Leket Baara jamay Jamaïcain suma rakk ji suma xarit ba moo fa jaar Hmm? muy combat boo xam ne derby la ca Gambia muy Modou Lo la Gaye bu Sénégal boo demee Gambie ndax kere man ma demoon ca seen euh, euh, face à face buñ mujj a def ah ca Sénégambia ca biir Gambie boo fa duggee kere da nga xam ne eh, fii moom macha allah keroog xulle ñoo àndoon waaye da nga xam ne combat dëgg dëgg dëgg moo nar am dimanche nga xam ne mooy ca stade Bakaaw ba war a dox ci diggante France ak Leket Baara ñu ngi ñaan yàlla rek ñu bëri ko ci jàmm que le meilleur di ñaanal jamaïcain tamit mu réussir bés boobu ndax xale la boo xam ne bu gëm lu muy def la te itam. bu bëgg a la te itam vraiment mu ngi ci yoon wi yaakaar naa ne kon yàlla na ko réussir te gis nañ tamit ku mel ni Mor bu Parcelles Mbooloo ñu koy wax mention spéciale ci jàppale bi mu jàppale jamay ke nit noonu la xale bu la wóolu dénk la boppam ah ne la jàppale ma ah da nga koy jàppale te yàlla tax waaw te Mor mu ngi def loolu kon Jamaïcain itam lu ñu koy wax en tant que suñu rakk mooy digganteem ak Mor sa digganteeg Mor sàmm ko lépp teg ko ci dëgg siraatal mustaqim loolu dafay am solo parce que ànd boo bëgg mu yàgg rek. bu ko dëgg lale rek fa nga bëgg dem di nga fa dem waaye leneen lu mu mën a doon rek bu doon immeuble la sax te dëgg lalu ko ëllëg mën naa mab wàcc sa kaw kon diggante Jamaïcain ak Mor loolu laa ciy wax di jam ko Jamaïcain dimanche yàlla na nga réussir bés boobu nga xam ne moom nga tëgg te nga fa nga xam ne moo di Gambia Jibi Jola agent wu booy euh, agent wu di nijaayam moom ne na jén kayre lañ soxla effectivement am nañ ci droit ah parce que gàmmu géey lañ daan te gàmmu géey bokk na ci espoiru lamb yi ñuy xaar ëllëg fu sori ci lamb ku ko daan ker arène nationale ak na ko daane ak public ba fa ñëw ak lamb ji na mu animé ah am la mujj daan ndax nag dana yomb wala du yomb pour combat ba taxaw foofu la nekk waaye daal wax na la mu bëgg waaw wax na la mu bëgg war nañoo mën bëre nag ci kaw sport waaye itam Diène am na droit na damay xooli leneen loolu ba tey ay droit am la ah nii mu nekkee bu ñu continuer ku ko bañ ren tam déwén sax man nga koo bëgg mu tëla waaw parce que mbër bu saf xorom la mbër bu am animation la et puis am na beneen lu ma seetlu ci soq mbër mu sportif la waaw il est sportif parce que keroog ma gis mu def lu doy waar ci làmb ci ñu bëri bàyyuñ ci xel te set bu mu sol di ci rendre hommage Sylvain Légion ak papa yàdd teg papa yàdd foo ko gisoon gis gàmmu gi rawatina rakku gàmmu gi bi bokkal ndey ak baay di mbër di baay bees mook gàmmu gi daawuñ mook kële daawuñ tàqaloo mook papa yàdd kon soq moom itam ci biir làmb man bokk na ci mbër yi may saluer seen ay taxawaay ndax mbër bu sportif la soq bu Pikine di ko féliciter di encourager gàmmu gi face à face yi nga xam ne day toj ndax ay violence ndax mbër yi duñu civiliser waxuñu sax moom kay a civiliser civilisation bi mu fi mu ñun ñuy wax ak supporter ya comme ci mën a doon war nga xoolaat sa taxawaay parce que nag ay violence ay tojantey bopp loolu amul benn sens loolu njariñ moom da ko dul le kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a ba ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi Gaston Mbengue moom it mu ngi wax maanaam budget ren ah ci combat yi mu jot a taxaw fi mu jëm nee na daal dépassé na 2 milliards moom waaw kon kooku xam nga ne kon moom itam daa mel ni ren ah yaramam tàng na ñu ngi koy ñaanal mu yeggalee jàmm rek di ko ñaanal bépp promoteur ah parce que loolu mooy làmb ku ne xam na ne tamit ah euh, idaali ñi ngi bi nga xam ne suñu xarit la du suñu frère day ñëw tamit le 26 juin fa nga xam ne ni moom moo di ca euh, euh, stade bi ba Mar Diop andil ñu Ronaldinho mi ngeen xam bu Tëngéej ak xale bi nga xam ne ni moom mooy tonnerre numéro 2 bu écrit Ndakaaru wala boog bu kolobaan léegi waaw Idaly ñu ngi 10 combats pour le 26 juin Idaly tamit te xale boo xam ne macha allah mu ngi bay waaram waaye tamit yàlla dogal mu nekk suñu waay loolu la yàlla dogal waaw moom lu mu nekk rek dañ ci nekk parce que moom moo ñu jàppe noon moo koy nuyu di ko ziar di ñuy waay ñu ngi production a ku mel ni Fallou Ndiaye tamit du ma ko fàtte jéey seen tamit ku ne xam ne day ñëw moom tamit mois de juillet lay ñëw ah Mohamed Diop borom Ndiaye Mos production nga xam ne daaw ne naa fi dàq yaa ko tëggoon diggante jamteeri ak jet li magu soog ci arène nationale Mohamed Diop xale la boo xam ne moom tamit maam maanaam moom li ma ko tuddee mooy force tranquille moom day def te du wax Mohamed Diop bu géej waay ñu ko ñu bari xamuñu ko xulle te daaw làmb ji dàq euh, maanaam bi ko corona làmb yi ñu bëri te mu dàq arène nationale moo doon bébé jéen fourrière jet li ak jamtéeri Mohamed Diop moo tëggoon jët li jam téere Assane Ndiaye tëgg bébé jën ak fourrière waaye Mohamed Diop moom kera defe naa na mu def arène nationale doy na waar te doo ko gis fenn kenn mënu la ne kii mooy Mohamed Diop buñ la woon sax da nga naan du kii te loolu li ko waral mooy simplicité nit da ngay simple dangay ngay simple am humilité dafa baax si doomu aadama nañ ci yàlla dimbali def ko si ñun mu nekk leen si ñun euh, bu ñu continuer ci record fi ñu ciy ñëw mooy Aziz Ndiaye mel ni waxam ji mu wax daal ci yëglikaay bi daa mel ni a ah, andi na ak jeexi jaaxade parce que jàpp na ne daal Balla Gaye 2 lay bëreel de combat yi mu signé nee na Balla vainqueur yi lay bëreel maanaam ñi daan te booy ñaa ñaari combat la signé Eumeu Sène ñaari combat la signé ah, kon nag loolu moom ay wax la ku ci daanu xaw ma nag ñooy daan xaw ma kuy daan waaye daal Aziz jàpp na ne ku daanu moom jàppal ne doo bëre ak Balla loolu nag Aziz a xëy day wax ko Balla nag mu mel ni moom Bombardier sànnente nañu ay xeer biir record ndax Balla nee na ko yow sama diggante ak yow leen nga ci yaakaar muy mystique gàllaaj gi rek nga ci foog nga yaakaar ne moo koy jeexal nax nga sa bopp te bu ca yeggee da nga xam ne mystique boobu ngay wax dana la nax nax yoo xam ne nii ba ngay bëree ba tey ay nax yu mel noonu mosoo ko loolu la ko bàll xëy wax ba ma jë ko ne ko yow da ngay soow maanaam da tàngal nii rek di xumbal waaye xam nga ne moos yow sa wax jooj ngay wax sa gëmoo ko te buñ ca yeggee di nga ko xam mu mel ni ñaari ma fit daal la Gaston Mbengue boore la 31 juillet yàlla na ca yegg ak ñu bare ko que le daam seen aboy ak seen li ñu def ci weekend bi ñu ñaari xale yoo xam tamit ñu ngi leen di féliciter di féliciter seen encour euh, seen encadrement yi hmm? di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq xam di wax Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm tàppe xol yi comme ni ko maam Dabaax doon waxe di wax ne que rek réewum teraanga lañ ñu dippee te teraanga buñ ko waxee ab yara koy ëmb sutura teraanga dëgg yooyu yàlla na ko yàlla saxal ci réew mi parce que loolu lañ ñu nàmpatale fii ci Sénégal ndax li ko waral mooy kilifa yi fi tëddale dañu ñaanal xalif généraux yi ne ci Sénégal yépp yàlla na leen fi yàlla yàggal guddal seen ay fan wéral seen ay cër barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu lañ koy ñaanal tamit suñu mbokk chrétiens waa jàngu bi ak kane ca bopp ba parce que benn bopp lañu te benn bopp kenn du ko xar ñaar kon xulle loolu moo fi dikkoon tey mais encore une fois di profité rek di nuyu waa Petersen ñoom Babacar bu Modou Lama ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ñoom Jib Sène ñoom seex Lambaye ah ñoom ñëpp maa ngi di maa ngi leen Abdou Sakho doomu ndeyu Modou Lo moom tamit mu ngi foofu di jaakatu dàll maa ngi koy nuyu depuis Petersen di nuyu képp koo xam ne yaa ngi nekk biir Petersen rek di liggéey Habib Sarr di doomu ak yaay di ab tailleur nekk ca Petersen tamit maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax a baax waaw boobu kooku ñoo village ak jeunes yi nekk Petersen nekk fa ay ouvrier nekk ay mécanique ay lameur foofu ci biir garage Petersen ñoom Ibou Thiaw sama rakk yi ñoom boobu yëpp Ousseynou Diagne Seynou mbuur ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee di leen ñaanal jàmm parce que li ñuy def dañ ciy bég ñoom bu baax baax sëñ Saliou Ndour moom tamit du suma rak ak maam góor Jazaaka depuis marché Sandaga bokk ci 100 pour cent Babacar 100 pour cent Babacar tamit aw ma seen fay ñoom Jiga Grand Lay Cédric Saliou Sarr ah. ñoom ñëpp Ibrahima maa ngi leen di béggee fu ci waay mën a nekk rek Mass Ndiaye Baye Zal Paris képp ku ne ci groupe ba David Louis maa ngi lay ñaanal nga am jàmm di ko ñaanal tamit fans club Babacar ak Equivox ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee ah ba beneen yoon incha allah wala ba suba bu soobee suñu borom.